Euh, mois de fii wala fii ak fin mois bi les choses peuvent changer d'un moment waaw xam nga fi mu toll nii moom Sénégal liy xew suba ak gannaaw suba <laughs> yaakaar naa ne kenn mënu koo xam. dañoo toll ci benn diggante boo xamante ne nii. te ñi nga xamante ni ñooy jóg di dox jàmm kenn déglootu leen mais seulement man du ma d'accord trop ak euh, le doyen. bu mhm. bëggee mettre do à do Ousmane Sonko ak le président Macky Sall. <laughs> waaw dama dégg waaw dama dégg kii kii jusqu'au mu lay def fii kii di def jusqu'au boutisme de l'autre côté mhm. man dama jàpp ne euh, Ousmane Sonko lii xew ni victime la si mhm. pour man victime la ci ki nga Issa mu ngi koy wax sànq ki nga xamante ne nii tey sécurité Sénégal ci loxoom lañ ko teg mhm. c'est le président Macky Sall moom lañ faloon moom la ñu fal te ci mission mi mu bokk ci aar sénégalais yi assurer leen jàmm xam nga bu ñu bëggee euh, xool contexte bi rek par rapport à ce qui se passe dans la sous-région. Mhm. maa ngi koy wax bële passé le président Macky Sall on l'a élu en 2012 le 25 mars. Mhm. le 21 mars 2012 Mali amoon na coup d'état. Mhm. te teewul il a géré son pouvoir sans kenn xalaat ne ay euh, jihadistes dinañ jóge Mali wala ñëw fii. pour man loolu euh, nekkul ay argument yu taxaw. li nga xamante ne nii moo xew mooy que nit ñi dañoo wax wala wax au président Macky Sall. que Sénégal n'est pas sa propriété que nekkul ne moom lu mu bëgg loolu moo fi am li nga xamante ne nii moo ñu tiim ñun ñëpp mooy la constitution tant que ñu ngi nekk di respecter loolu ñun ñëpp jàmm yaakaar naa ne mën na am Sénégal ci euh, euh, euh, mu nekk coobara yi ñëpp gis ci seen bopp mais bu nekkee ne moom mi nga xamante ni jàmm askan wi ci loxoom la nekk mu ngi ci biir comment dire Sénégal gi ñu nekk nga xamante ni moom daf fi ñëw fekk démocratie taxaw fi ma tudd fi ay code consensus yoo yoo xamante ni bañ koy wax moom xëy na duggugul sax si politique mu bëgg a ñëw jël yooyu yëpp salfaañe ko bëgg ñëw dicter sa volonté et ses désirs yaakaar naa ne dina am ay sénégalais yoo xam ne dinañ taxaw jàmmaarloo ak moom mm-hmm. mais xam nga pitax sax soo ko bëggee këppatal mm-hmm. mais il faut nga nax ko tuuti sànni dugub ak yooyu mm-hmm. mais yow mu lenn la da koo bëgg a ba pare di ko teg ci doole parce que Ousmane Sonko neewul ne du wuyu ji la justice dafa toog gis ne pour dem wuy ji justice. Mhm. lu ne ñu ngi koy jël di ko teg ci kawam. mu jàpp ne kat bu dee diggante cité kër góor gi ak euh, tribunal mun naa faa daj lu ne toj nañ fa samay verre on naa même attenté à ma vie. Mhm. solon lui mais illa toute toutes les raisons du monde mu ne balaa maa dem foofu il faut que ma am garantie bu dee euh, euh, par rapport ak li ma dégg avocat mi di wax. Mhm. parce que ñoom nee nañu seen souhait mooy que procès bi am Ousmane Sonko ñëw toog mais bu nekkee ne diggante cité kër gi. ak tribunal bakkanam mun nañ ko ci jël mais xanaa nekkul ne da ngay dem pour euh, setal sa der ñu réalité la ci yoon bi loolu ban intérêt la am. Mm-hmm. donc pour man il faut que ñu nangoo wax la président de la république dëgg. Ousmane Sonko bu ñu ko respecté nekkul le leader de Pastef la ñu respecté tout simplement c'est quelqu'un boo xamante ni à la dernière présidentielle repré am na cent 700000 voix. Mm-hmm. ñooñu. boo manqué de respect à Ousmane Sonko manqué nga leen de respect te ci biir Sénégal la ñu bokk c'est des Sénégalais yoo xamante nii le président Macky Sall bien qu'il mooy président bi mais ëppale wu leen fii dara c'est un c'est des citoyens comme tout le monde. mais yow bu nekkee ne da nga jàpp ne kii kat euh, euh, comment dire comme que dañ koy woo muy de muy muy mu ne fii lay jaar. du jaar yoon bi ñu ko wax léegi dañ koy dañuy toj vitre otom génne ko yóbbu ko par force mais bi ñu koy premier jugé en première instance ak mambay Mbaye ba condamné ko à deux mois ferme mais vitre otom la ñu toj euh, xëpp ko pour produit sénégalais yëpp gis ko ñu génnee ko otom yóbbu ko tribinal bëgg ñu àtte ko xanaa yow balaa ngaa layoo sax procès en diffamation euh, alors que biir chambre criminelle nga yóbbu très mais même bu dekkee boobu sax nga xamante ni dañoo jàpp ne moo gën a euh, euh, par rapport ak li ñu leen di topp moo li ñu koy toppee moo gën a ndaw mun mhm. nañu xalaat ne même bu nekkee ne dañ laa ne yow yaa jël ñaar dërëmu nit kii pour nga ñëw devant le juge nga défendre il faut que nga ànd ak sa sérénité nga ànd ak sa teeyu bakkan mais mënuloo jóge ci oto boo xamante ni dañoo toj vitre bi gazé foofu yëpp fuqati la dugal la ci auto police ba pare bëgg la yóbbu tribunal ne la setalal sa der ci yan condition nga koy defee donc bu ñu demee ba nga xamante dëkk bi pour ay reetaan nit mën na la ci jàpp pour une publication mën nañ la ci jàpp ba pare ñu bëgg a wax sénégalais yi ne loolu kat il faut que ngeen continuer di ko nangu mais li ñuy woo li yi du lenn lu dul nangu leen nootaange d'accord ci jàpp boobu ngay wax sax suñu suñu benn console boo teg yoxo moom euh, Mati Sarr Niang moom la ci avocat am di maître Patrice Kabou moom moo ko euh, jibal xibaar boobu lay xadisi la muy mhm. loo xam ne quand même euh, buñ commencé nag bay jël ay taskatu xibaar souvent nekk na koo xam ne en a mhm. moo joxe information bi muy loo xam ne nag buñ jàppee en koo xam ne su ñun la bokk quand même dañuy àndandoo di ko masaw mais aussi di njortu que ni dans les prochaines minutes wala même heure xëy na du fa àgg sax dina delluwaat ci ak njabootam moom Mati Sarr moom li nga xam ne euh, dañ koy faral di gis souvent aussi euh, ci taxawaay bi nga xam ne moom la am xaddi si la ci le 23 boobu noonu sax euh, Ismaël la ko doon wax sànq dina naan ci mooy renvoi procès bi la a lañ ci mën a xaarandi ak vu la xewoon démb ak tey li nga xam bi moo commencé aussi di xew. tu sais il faut pas se faire d'illusion ay tension lay indi mm-hmm. ay tension lay indi mais li ma bëggoon clarifier pour bu comprendre ma parce que <laughs> analyse interaction lay def. Mm-hmm. te bon interaction bi mooy force reste à la loi et la réponse c'est gatsa gatsa et peut-être que la réponse gatsa gatsa moo tax ba tey kenn tëju ko. <laughs> par rapport à, à par rapport à l'autre et dama lay renvoyer suñu rapport parce que en réalité li ngay wax pour ñu wax ko euh, comment dirais-je ñun on est allé le dire à la commission africaine des droits de l'homme en disant quand même que c'est une c'est une démocratie en déclin mm. un modèle modèle donc euh, déclin modèle bi li tax ñu wax ko mooy d'abord ñëw nañ ci institution judiciaire ñu analyser ko cest à une justice boo xam ne assujettie justice boo xam ne c'est assujetti je dirais même au fourches caudines ça veut dire que pouvoir exécutif bi ni mu téye judi pouvoir judiciaire bi ñun bi ñu demee Gambie di ko wax Gambiens yi lañ doon nekkoon di waxtaan dañu jaaxle loolu mënul am Gambie ça veut dire que dans la plupart des pays euh, anglophones loolu mënu fa am te pouvoir judiciaire boo xam ne président bu fekkee ni si politique loolu lay wax les dossiers signalés président danaan ministre bi lii la ministre bi ne procureur lii la te procureur daf fi am doole donc ñun wax nañ il faut ñu réformer le pouvoir judiciaire am ñu ay juges yu baax macha allah yoo xam ne sax am na ñu réputation au-delà mais il faut le pouvoir judiciaire te pouvoir judiciaire la ñu wax en France autorité judiciaire la ñuy wax te France ay juge femme Sarkozy nekk président de la république gars yi woo ko mu wuy si <laughs> ñu koy interroger ba presque biir seen te mu ne président de la république. mais suñu problème judiciaire ça toujours été comme ça c'est vrai que c'est euh, ci magistère mais il faut ñu régler ko il faut ñu régler ko mais. léegi sénégalais dañ naan kumba am ndey ak kumba amul ndey c'est que c'est que impression boobu sax mu am moo fort moom la ñu benn ci ci yi lañ bokk euh, beneen faiblesse bi mooy faiblesse bi nga xam ne. tey il faut ñu waxtaane ko parce que euh, lii nga xam ne ñu ngi koy dund tey dundoon ko en 2011 2012 mooy hyper présidentialisme construction bi mu ngi commencé ak ce que ce que li ñuy wax la constitution du 7 mars 1963 bi nga xam ne Senghor liquide na du Dia defar ay moom ci boppam moo ko defar indi jox président doole joo xam ne amul loi bu ko mën a téye amul institution bu ko mën a téye mm-hmm. loolu nag foog ñu waxtaane ko encadré toujours encadré tuuti li nga xam ne mooy kiiwu président encadré ba encadré sax nomination yi aux fonctions civiles aux fonctions militaires parce que euh, soo ko encadré wul ëllëg si biir di nga gis ay affaires yo yoo xam ne ñu ngi koy commencé wax c'est c'est implicite yi bëgguñu wax ay problème de nii bëgguñu porox ay ay trucs mais boo kiiwee ak ñoom même ñun ñoom ci seen biir naan lii lii lii laa la. d'accord yooyu laaloon nga ko touché woon nga ko du doigt ci bi nga doon wax. Euh, junj que ni mën nañoo dem ci guerre civile. Euh, après gis nañ kàddu yi ci tukkee yëpp yu njëkkati. il faut ñu loolu moo tax ma ne il faut un minimum d'encadrement et puis il faut un minimum de trucs yoo xam ni c'est que sénégalais yi c'est pas parce que tout simplement toi dans un parti politique booy jël poste il faut mu am ay appel d'offre ñu jël les plus compétents les meilleurs ni président ah lii day DG ñii lañ la jox liste bi. est-ce que mën nañoo xaar euh, Africa Jom Center euh, dem Ziguinchor jéem a rencontre Ousmane Sonko. mais bien sûr dem Dakar euh, dem gis chef de l'État. moi dama leen def. voilà wax benn benn secret ci man ñëpp lay wax.